budget bi dañ koy voté lu tax parce que say programme solo euh, te ce budget moy voter programme bi nga xamé da fay dem Sénégal monsieur le ministre nak li nga am li may 3FPT ndax nga fa lu solo ndax am président Macky Sall sas moy formation ndaw ñi bu ci parti politique

bu am solo dafa li nga xamné également moy guichet unique jëmale ko ci emploi formation ñukoy koy rafetlu monsieur le ministre. nga ñëw tamit indi apprentissage rénové moy la certification des apprentis nga ñëwaat également monsieur le ministre indi finance fonds bo xamné ne da nga ko jagleel artisanat bi loger ko ci ben mutuel ñukoy koy rafetlu waye amna également ay attentes yu melni yessalat dolel yokku yokku moyen fi nga xamné moy chambre de métier bu Kaolack monsieur le ministre ñu bëgg tamit ay jumtu ay ay sites des sites dédiés mooy fo xam tay ji ñi nga xam dañuy dañuy yëngatu ci artisanat de production moy bois bi ak menuisier am fu ñu mën a ak site bo xam tamit artisanat de service moy ñi nga xam ne mooy les mécaniciens donc monsieur le ministre renforcer également initiative yi nga xam tay mom lañu am muy de promotion dem ci foire yeeg salon yeeg jàppale également jigéen ni c'est un produit qui mu am label